rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat alhamdulillahi rabbil alamin as-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddin wa radiyallahu an sheykhina wa wasilatina wa qudwatina ila rabbina abil abbaasi abil fiyudaati ahmadu tijani radiyallahu taala anhu maa ngi nii ñëpp di ziyaare ñëpp di nuyuwaale di gërëm sama sëriñ yoo xam ne su ma ñëwee fii tey yàlla ak moom la muy Seydi El Hadji Aboubacry Diallo koo xam ne nuurullahi fi ardihi qaa'idin al awwah akrim bihi min murshidin muallimin mudarrisin musawwibin muaddibi saanahu llahu maa yasuu'u wa arda bihi ba'dan wa taaba bihi sanaa moom ak mboolam ñu muy liggéey ak rakkam yu baax yi nga xam ne ñoo ko doon jàppale ba tey ji yàlla def na kenn ku ñoom am na daara boppam Cheikh Yaxya Diallo ak Sidi Euh, Omar Diallo ak Ibrahima Diallo koo xam ne tamit si la bokkoon ak ñeneen ñi ñëpp maa leen di nuyu. Mhm. ñoom ñëpp di leen delloo njukkal si baax ci ni ma yare mhm. ndaxte bu mu ñëwee fii nii ak bu xamee dara ba ñëw toog ak yéen ñi di jéemal la wax leen loo xam ne lu jëm si diin lislaam yàlla ak ñoom la ginnaaw samay ñaari waajal incha allah. jërëjëf oustaz Seydi euh, kon euh, tey nag dañuy daal di commencer ci suñu thème tey bi muy daara ma bëggoon nga wax ñu est-ce que Euh, mën nga ñu fàttali baatu daara fu mu jógee. baatu daara euh, tabaarikalla macha allah daara xam nga daara ci arab lañ ko jëlee maanaam ira la nekkoon daaira la wolofal bi jël naan daara ma ñun xaalpulaar yi judal la ñuy wax judal maanaam ñun comme seen kilifa yàggee ñoom bu ñu doon jàng amuñoo làmp comme nii mm-hmm. xale yi dinañ dem dem si àll di taxañ bu bu nekkee ba guddi bu ñu jëlee timis euh, boobu di jàng loolu mooy daa pulaar moo koy wax judaat léegi daaira boobu lañuy ñuy jël di ko owee daaira daal ñu koy gaawaan ba mu nekkaat daara léegi moo tax ñu bëri léegi boo leen waxee daaira sax leneen lañ lay jox pas daara mm-hmm. mais daara daa daaira lañ ko jëlee mooy daaira loolu la foofu la jigéen ñu gis nii liggéey yi tamit bëri nañ lool ah. lan moo leen xiir si yor daara waaw yor daara moom xam nga rek comme nga ko waxee liggéey bari bëri nañu trop euh, kenn ku ne li nga programme liggéey maanaam boo nekkee xale di jàng yow saxel da lay jox ne man su màggee médecin laa bëgg doon wala su màggee journaliste laa bëgg doon wala su ma màggee euh, ingénieur lay dem comme genre yooyu ñun nag yàlla def bu ñuy nekkee xale ci daara la ñuy yaru mhm. ci la ñuy jël tam ñun tamit suñu màggee daara la ñuy yor mhm. te boo xoolee tamit mbooleem métier yu nekkee si kaw suuf mhm. daara moo si gën a baax ñu ko si hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñu yonent bi ak saaba yi mu laaj leen ndax xam ngeen ni ki gën su mu mu ne leen xayrukum dafa mel ni da laaj ku gën si yéen ñu teg ne setan yi lañuy wax wala doom yi lañuy wax wala comme genre yooyu mu ne leen déedéet xayrukum man taallama alqurana wa allama ku gën seen mooy ki jàng alquran ba mokkal daal di ko jàngale te jàng tamit loolu mooy faydam da ngay jàng ba pare jàngale boo jàngee wañee jàngale loolu di nga jàng amatul sens da ngay jàng jàngale comme ni ko yàlla xëy alquran u anfusakum wa ahlikum naara loolu yëpp day jàngale day firnde ne boo jàngee ba pare war a jàngale moo tax ñun amuñu beneen jàngale li ñu sëriñ ñi daan jàngale mm-hmm. moo tax man moom si sama bopp man ba mu joxante visa Amérique sax du ma ko jël moom lu su ma jaay lekk bi def ko mm-hmm. ma du ma bàyyi sama jàngale bi dem di uti xaaj wala dem di liggéeyal ñeneen ñoo xam ne par rapport ak yor daara waaw Oustaz Seydi ma bëggoon nga wax ñu kan moo war a yor daara kan moo yor war daara loolu tamit lu euh, lu ma di bàyyi xel la tamit daara ki ko war a yor faa nga nga yeew rek yor sa daara mm-hmm. loolu du yoon ci yor yor daara mooy koo xam ne dafa jàng ba mokkal alquran nga boole si tamit xam li alquran di jàngale ak ni ñu koy jànge mm-hmm. nga jàng boo moqale alquran bu la yàlla mayee nga mokkal parce que euh, théorie yi ni ñu koy jàngee bari na am na riwaaya warsh riwaaya xafs riwaaya qaaluna ay ibnu kathir ba mu met ba mu mët set am na ñoo xam ne am na ñu xam ne ñeneen ñi ba diis mais set yi la genn gën a jàpp mm-hmm. bu yàlla mayee nga mën ñoon yëpp macha allah loolu baax na si trop mais bu fekkee tamit benn wala ñaar nga si moom na nekk ne mun nga rek boo xam ne boo jàngalee xale yi duñ leen mën jàngal lu leer lu set loo xam ne ñoom tamit buy jàngee si kanamu ni kenn du leen wax si la ñuy jàng seetul wala dafa am ay yoo xam ne waruñu ko waru si woon foofu bu mhm. nga boole si tamit nekk koo xam ne danga mun yor ay xale parce que jàng ak yar ñuy ànd mënoo mhm. jàngale nit ñi alquran ba pare fekke doo si boole yar ak ñu mel noonu mhm. parce que yar bi sax moo gën a am importance nit ki mun nga ñàkk mun jàng mais na nga am yaru waaw loo muntu am mun jàng boo yarul rek dafa day day manqué lu bëri mais nit ki mën nga jàng tuuti boole si yar am yar ak tëggin loolu mun na la jàppale si lu bëri moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom bu koy bu muy wax yàlla moom wanul yàlla ne lu mu nekk yeneen ci màgg na màgg màgg na si moom lu bëri non non moom dafa wax yàlla addabani rabbi fa ahsana ta'dibi maanaam yàlla yar na ma ba defal sama yar sama jikko bu baax mm-hmm. moo tax nit ki boo naree yor daara di jàngale xale yi di nga ciy boole di leen yaraale yaa ñaar yooyu boole mu ne rek yow mun nga yor daal mais pas nga ñëw rek yow rek naa ni nga yor daal fekk yow mënoo jàngale wala wala yow ni nga yare yare xale yow tam ñu si war a léegi lan moo waral parents yi di yóbbu seen doom yi daara oh, li waral parents yi di yóbbu seen doom yi daara tamit mun na nekk si ñaar euh, si ñaar bi nga xam ne mooy waral ñu yóbbu xale yi si daara benn bi mooy mën na nekk waajuru daara yi ñu nekk ñu bëgg alquran mm-hmm. ñoo xam ne jaaroon nañu si alquran ba tey yàlla may na ne ñoom tam am nañu ay njaboot ñu jëlaat seen njaboot yi delloo leen si daara comme ñoom ni ñu daaloon si daara ak bëgg bugg bu ñu bëgg parce que tey quran boo ko bëggee rek mooy que yow bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa si alhaaj Malik mu ngi wax si téeram bu tudd xilaasu zahab mu ne tey boo bëggoon xam nit ki sa bëgg sa sa mbëggeel yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xool ko nu mu mel si alquran mu ne inna alqurana huwa almizanu taarifu minhu maa qad xaweyta min al ashwaaqi wa sadami maanaam tey boo xoolee boo bëggee xam nak nga mel si yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xool ni nga mel ak alquran boo bëggee quran rek bu yeneen bi bu nekkoon noonu nga mel ne ak moom beneen kii beneen bi nag am na loo xam ne day tax waajur yi di yóbbu seen daal mais loolu dañuy sonal ñun parce que ñoom dañuy xool xale yi seen xale yoo xam ne dañuy dañuy dañuy dëgër bopp si kër gi. Mhm. wala ñoo xam ne ñoom dañuy mënal mënatuñu leen dara dañuy dem ci plage yi ñii di ngoon bu jotee ci terrain yi lañ leen di jafe léegi day xeex suba fii nii mhm. ñu obligé leen yóbbu ñu noppaleeg ñoom mhm. loolu tamit am nañu parents yoo xam ne noonu lañuy loolu loolu mooy waral ñu yóbbu seen daara seen doom yi si daara. léegi que mooy ñii di indi seen doom yi si daara ce que ñu leen di nemmeeku di leen ñëw seet si indi ay dund. waaw parents yi tamit yamuñu am na ñoo xam ne bu ñëwee indi seen doom parce que daara yi daara boo xam boo gis dafa am programme boo ñëwee yow mi am indi sa doom balaa ñuy jël xale bi dañuy waxtaan ak yow wax la suñu renseignement yëpp nga ko noonu ñu wax la par exemple man wax la sama daara man ku ñëw da ngay fay par euh, par fin mais mois vingt mille wala vingt cinq mille par exemple léegi yow ñu waxtaan ba juboo léegi bu weer jotee bu weer bi dee yow de waroo xaar ba ma oo la mm. da war a ñëw indi sa fay indiwaale indiwaale région yoo xam ne pour xale bi mm-hmm. comme genre ay meew chocolat yi affaire yooyu noonu comme ñu nañ nañ noonu lañ daan jox bi ñëwee mm-hmm. dañuy indi fay ba pare jàppalaale si loo xam ne seen sëriñ laaju woon mm-hmm. mais ñoo xam ne tamit dañuy xaar ba sëriñ bi woo ñëw ñeneen ñi sax dañuy toogaat ba ay deux mois trois mois soog soog ñëwaat si daara bi pour indi fay wala yu mel noonu loolu bi arrange ñun daara yi loolu du ñu arrange pour ñun loolu bu baax moo tax loolu tamit euh, waajur xale yi war nañu seen xel bu baax. léegi noo leen di dundee ak seen taalibe yi si wàllum euh, póot mi si wàllum dund bi si wàllum jikko yi nga xam ne bokkuñu vu que bokkuñu fuñ cosaanoo léegi te seen daara yi day day faral di bari ay. taalibe lu ñu dundee waaw loolu tamit comme ni ma la ko waxee rek xam nit ki moom bu la yàlla may nga jaar si lenn rek ba màgg si mm-hmm. boo boo demee ba yàlla may nga toogaat si loolu dafay fekk am si jàngat yu bëri mm-hmm. comme ni nga ko waxee nii xale yi dañuy jóge fu ne di ñëw am na ñoo xam ne dañuy jóge ne Gambie ba Conakry ba fii si Sénégal xam nga ñeneen ñuy jóge ba Mali mm-hmm. ñëw si bi mais loolu da ngay fekk day fekk ñun jaaroon nañ si lool ba tax loolu du ñu sonal lu bëri du ñu sonal sax mais ñun dañuy dañ koy maîtriser parce depuis temps sa bopp noonu ngay mel si ñoom mhm. ku ne xale bu ñu la indi ngay xool jikko bu mu yor boobu noonu mhm. nga bañ a nekk sëriñ boo xam ne toujours dangay tànga rek wala toujours da nga seddal noonu am na xale xale nu mu nu mu mel rek melal moom melal ni xale bi nu mu mel moom ni ni bu fekkee xale bi dafa yaru wala dafa tey nii comme yow tamit nga mel ak moom comme noonu xale bu xaw a dëgër bopp tamit nga won ko ne dëgër bopp boobu du fi jàll nga nga jëm ka wàññi ba affaire boobu dem ci moom comme noonu incha allah boo boo fa defoon foo jeeg ay lekk euh, affaire yu noonu comme suñu doom yi ñu leen yore rek buñ joxee xale pour ñu yar ko dañ koy téye comme suñu doom mm-hmm. ni ñuy toppatoo suñu doom yi pour ñu màgg ngir ëllëg doomu jaamur ñu nekk suñu daara noonu lañ leen di defaree dañ leen di fóotal soit léegi léegi ñu jël fóotkat ñu koy fay wala noonu dajale xale yi léegi xale yu ndaw yu mënul dara ñoom du ñu fóot ñuy xool mag yi ñoom lañuy mobiliser fóot ñu seen bopp fóotal xale yi mm-hmm. léegi léegi ñu ñu óol machine à laver def ko si daara bi nga xam ne loolu moo leen di fóotal comme mm-hmm. moo tax ñun euh, daal yi daal daal xale yi daal macha allah. macha allah Oustaz dañuy faral di dégg ay cas de viol si daara yi aussi ndax viol dëppoo nag daara. waaw loolu moom wax dëgg fa yàlla dëppoo loolu du du du lu rafet sax ci ci ci wax euh, maa ngi jégalu jégoon na man bu may gis loolu noonu si internet bi de benn femme Fatou bi moo ko doon wax benn xale bu góor la doon wax. dañu mhm. seen daara moo ko def yooyu noonu. man euh, defan naa bind naa commentaire parce que man man xale bu jigéen bi laa jéppoon nu mu ko waxee. Mhm. waru kon waxee noonu parce que borom daal yamuñu. Mhm. borom daal yamuñu ñun suñu daara duñu par exemple ñu jigéen góor ak jigéen sax duñu bisan comme genre yooyu noonu suñu da suñu sëriñ lu ñu lu ñu yare. Mhm. yow du nekk sax def yenn yi kon ñun wóolu nañ suñu sëriñ du xalaat def yooyu noonu te ñun ñii ñu man ñi ma bokkoon daara wax ma sama daara man ñi ma bokkoon daara xam naa ne même tamit comme jikko bu ma yor nii mhm. yor nañ comme jikko boobu noonu ba duñ xalaat yi def yenn yoo xam ne dafa sudul noonu mhm. xale yi boo wala comme genre yi jigéen yoo xam ne euh, charia daga nañ seen diggante waaw parce que viol moom loolu àndul ak daara loolu waruñ ko saa déggee si borom daara yi loolu fekkee loolu dafa amoon nag xale bu jigéen li mu doon wax noonu xëy na mun naa waaye ñu rafetlu ñu ko ñu borom daara ñu ko benn borom daara du dégg loolu neex ko ñu ñaan yàlla yàlla sàmmal ñu suñu suñu yi ak xale yi ak nekk si daara yi ba loolu noonu du amaat du mos a am si daara incha allah. dañuy faral di gis tamit ay taalibe fajar ba guddi dañuy traîner si mbedd yi est-ce que si anam yooyu dinañ mën a mokkal alquran. waaw xam nga comme ni ñu ko waxee ni ñu bëri noonu la waxee xale yi dañuy nekk si mbedd bi suba ba guddi mais boo xoolee du ñëpp mm-hmm. am na daara yoo xam ne fekkee kay jàngalekat daara boo xam ne daara yi am na ñaar façon daal mooy daara moderne yi ak daara ne dañuy laal daara internat yi ñoom amul amul ci génn comme man fu ma nekk nii kenn du génn naa nag daara boobu tamit comme comme nii comme ni xam dañuy sama daara sëriñ man fi ma jàngal jàng nañu foofu amul kenn bunt kër gi sax gis moo tax duñu yàqam ci fenn ñu dem firi tuuti comme daara yooyu noonu mais xale yi nekk si mbedd am ñoo xam ne ñu bëri ñu nekk fii ñu nekk fii nii ñoom duñu ay taalibe sax moo tax duñuy yàq dëru daara yi Mm-hmm. am na am na ay taalibe nag mais ñoom duñ nekk si mbedd yi fajar ba guddi dañuy yelwaan par exemple bu ñu yeewee fajar ni duñu jàng ba six heures sept heures ba onze wala ba huit yooyu delluwaat si daara bi jàng nekk foofu ba onze heures yooyu dem yelwaan añ parce que léegi-léegi tamit fokk ñu yelwaan yelwaan mi c'est obligatoire parce que ñun mënoo indi saxale ñu la koy jàngal fekkee yow par exemple indiwaale wa dara loo xam ne dina dinañ si mun a jëfandikoo suñu suñu njaboot ba yar si xale bi nga indil parce que ñun maa ngi doon mu ne yow yow mii waajur xale nga jël sa doom xamul dara nga yóbbu ko si borom daara koo xam ne amul dara nga daal jël dara boobu nga nga daal di bugg sëriñ daara boobu def si xale bi dara te doo def dara mm-hmm. loolu du du demee noonu ku def bugg daal da nga def dara. boo bëggee sa doom toog kër gi di jàngat pa du dem si mbedd yi da ngay jàppale seen daara bi parce que moom tamit dafa soxla mënoo toog di jàngal suba ba guddi fekk joxe am parents élèves jàppale ni nga defaree sa njaboot wala ni nga yow sa bopp boo feebaree wala sa xale bu ñu feebaree parce que kenn xamul lu ñu leen di fajee. oustaz ñenn ñi dañuy wax sax nag taalibe yi nga jox leen xaalis moo leen gënal nga jox leen leneen loolu ñu mënta jox. ndax seen sëriñ yi ñoo leen koy exiger ndax loolu dëgg la. waaw loolu xam nga jamono bi moo toll noonu ñun bu jaaga bi xale yi di yelwaan yi ñoom ceeb lañu doon yëbb wala leen ak ay suukar yooyu noonu parce que man man yelwaan si Dakar mais bu mu demee Fuuta yelwaan naa yelwaan foofu noonu te foofu noonu ñun ceeb wala ay dugub yooyu lañu doon yëbb jamono moo toll noonu parce que foofu temps jamono yooyu ceeb sax dafa dafa métti woon nga gis ceeb. maanaam comme saako ceeb ñu dafa dafa cheroon wala bu cherul woon sax bu am mm-hmm. xaalis pour jënd ca saako ceeb day day day métti mm-hmm. moo tax xale yi dañ daan dañ dañu daan eh, yabal ñu indi ceeb comme ay dugub affaire yu naan mais jamono bi léegi boo indee ceeb daanaka même bu buy njëriñ daara bi sax mais du njëriñ lu bëri moo tax seen daara si boppam nga boo demee yolaan nga indi sa trois cent wala quatre cent wala sa cinq cent moo leen di gënal nga dem indi potu ceeb jox leen mm-hmm. parce que léegi-léegi yow Euh, boo nekkee fi nga nekk yow di nga luwe bu fekkee xale bi ceeb la lay indi te borom kër gi bu pour laaj la luwaasam est que duñ ko ceeb jox ceeb xaalis xaalis nga koy jox moo tax yow nga xale yi ñu indi la xaalis moo la gën a indi ceeb wala yu mel noonu waaw mais par rapport nekkul tamit dañ leen di forcer indil nangam wala foog nga indi noonu loolu tamit am dégg naa ñu ko mais loolu bokkul xale yi lu leen jot ngeen lu leen euh, am ngeen indi ba léegi nag xale tamit xale la rek ñoo ñoom ñooy nekk foofu noonu bugg am leneen wala bugg dajale leneen yoo xam ne kenn sante wu leen ko waaw loolu tamit si bii bi la mënuñ si dara mm-hmm. gis ni bëri na taalibe yu ñuy dajee sedd sol lu oyof liw bay lox wala sax di def tànki neen si naaj bu tàng jër wala sax ñu lay ñaan xaalis jënd lan moo waroon waaw tamit comme ni ma la ko waxee rek xam nga daara day jàngal lu bari mm-hmm. loolu yëpp si jàngal la bokk man loolu question boobu dama ko gisee dama xalaat na lii lu ma lu ma la si war a wax mooy ko lii euh, xam nu ma la koy waxee mooy yàlla la parce que loolu man mii sama bopp man suñu ma waxoon tey ci tàngaay bi li tàngaay bi tuuti rek maa ngi koy jooy xama mm-hmm. laa nag ma si mi sama daal la dox si mbedd bii nii tànku neen mm-hmm. wala tuba teel ci anamu sa daal léegi ma jël ma si si si mbedd yi di mm-hmm. loolu mooy yàlla parce que loolu noonu boo gisee mu am pour jàngal ne yow boo boo màggee si loolu moo tax yow foo mun da dem da ngay mun loolu dañuy ñoom mais parce que loolu seen seen daara yi sant nañu loolu seen daara yi wax ñu leen ñu seen jërëjëf di di tànku ne parce que léegi day wax yow mii sax boo dañoo xale nga jëndaloo ko daal boo moytu suba boo dajaa doon da ngay fekkee amul daal pour nga comprendre ne xale seen daara yi dañu ñu ngi topp même ñooñu dañ leen di toppatoo mais ñoom bu ñu demee léegi-léegi ñoom ñooy def loo xam ne sant euh, nañu ko wala loo xam ne ñoom tàmm nañ ko wax dañuy ne nii wala sol yére yére boo am rek boo nga sol parce que du ñu daan du ñu saa ñu da gis ko yow rek fol yére rek sol ko mm-hmm. tamit ci la euh, lan moo tax yenn taalibe yi di fàkk bu ñu indee si daara yi loolu comme comme bi ma njëkk laaj sànq nii rek nga parents d'élèves yi comme ni doom xam ne dañuy yóbbu seen doom yi si daara ngir bugg alxuraan mm-hmm. mais am ñoo xam ne dañuy mën a jël seen doom yi daara moo tax ñu leen yóbbu daara léegi boo yow nga nekk sa doom ba mënatoo si moom dara nga indi ko daara te ba pare boo ñëwee doo ñu expliqué dara si ay jikkoom da ñëw rek ñu kii dem doom la indi naa ko indi naa leen ko ngeen jàppale mën na jàng mm-hmm. léegi kooku boo ñu joxee mu nekk ko kooku tàmm njëkkoon na tàmm dox or bu ko neex dem fu ko neex def lu ko neex mais ñun foofu loolu amul si daara yi moo tax léegi-léegi bu nekk bu fa nekk une semaine deux semaines rek day commencé di di naxalu si affaire bi xam nga comme nekkin bi noonu fii amul génn fii doo tëdd ba bu la neex fii doo foo doo football affaire yi noonu loolu mooy tax léegi-léegi bu bunt rek daal di génn dem yoonam waaw. nan yi di indi seen i doom si daara yi duñ leen gëstu. loolu tamit euh, parents yi moom waaye am naa am naa samay mbokk ñoo xam ne <laughs> daaw dañ def noonu dañuy indi daara seen xale yi si daara yi ba pare ñoom pour ñoom. tam yi moo leen war comme sëriñ di jàngale noonu la leen war a yore di leen toppoo di leen lekkal yooyu noonu mhm. lu bu dul doom sa doom bi sax sëriñ daara bi nga jox sa sa sa kii sa doom moom boobu di nga war a di ko defal loo xam ne yow mi yow sa bopp di nga yëg ni defal nga ko mhm. parce que benn alfu alquran bu la sa doom bu la sa sëriñ bu la sëriñ daara jàngale sa doom mënoo mhm. ko fay loolu waroo xalaatoo loolu yow nga yóbbu sa doom si daara bu fekkee doo sax dem di nammeeku xale bi wala di xool sëriñ daara bi naka la dem nekk ak doom rafetul moo tax loolu moom euh, foog ñu xoolaal ko bu baax diñ si waxtaan ak parents de parents d'élèves yi ñuy daal ñuy jàppale si yooyu noonu loolu dañuy daal lu bëri sax ñu am indi xale boo xam ne fi lay nekk ba un an kenn du ñëw di seet si xale bi wala kenn du laaj xale bi naka la nekk loolu moom wax dëgg yàlla rafetul euh, looy tàggatoo mbokk internet yi waaw ah, di leen jaajëfal rek surtout yow comme baax nga moom alhamdulilah bu ma xamee amoo si benn rëcc li lay jaajëf bu baax ak ñi nga àndal ñi ñëpp ak uh, yeneen seen yëpp tamit ñëpp képp ñu liggéey genre liggéey nii ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm mm-hmm. yokk bunt yi ba ngeen mën a réussir am chaîne ba RTS après yooyu noonu yëpp mm-hmm. incha allah tabaaraka wa taala mm-hmm. yàlla defal leen jàmm kon mbokk mu nekkoon seen émission Tok Tek damay remercier sama invité tay bi Euh, si disponibilité bi ndax ku ne xam na ni jot amul euh, kontaan naa oustaz Seydi euh, di remercier sama waa équipe technique bi yëpp di remercier sama coach Señora ak aw ma fayam di remercier Coco Ndiaye si bijoux yi ak tey jii nii moom moo ma génnee di remercier Kadia Sall borom di Chef Garden si conseils yi ak suggestions yi macha allah di remercier samay maquilleuse Aram yi ak Maymouna Sarr amoo leen morom remercier tamit waa garab bi yëpp ku nun kontaan naa si yéen di remercier képp kuy seetaan toog teg di lu seen ay conseils suggestion ak ñaan yi euh, gis naa seen taxawaay ak ànd bi ngeen ànd ak ñun ba tey dama leen ni bàyyi ak yàlla mu fayal ma leen seen mu fayal ma leen seen xol yu rafet yooyu noonu aw ma seen fay macha allah di leen joxaat rendez-vous si beneen numéro toog teg incha allah bu leen fàttee abonné si suñuy page Jour Plus merci beaucoup.